Wow, xalé yi yelwaan ci mbedd yi mi en fait euh, gis-gis bi ma ci gis euh yatuna lol parce que euh, so xolé xalé yi ëllëg ñooy dooni mag té xam nga xalé yi talibé yi yelwaan gi ñuy yelwaan dañ ci joggé sax ñen ñi ay bandi lañ ci def ak lu né dañ ci saccu ak lu né parce que da ngay dem bu do leen wul parce que en fait éducation biñ wara am amuñu ko parce que ñu bari seen sëriñ yi ñong leen di yor mais contrôle bi ci war ak éducation bi si war ñoom duñ ko def te loolu gën a gënut war nañ ci jël ay euh, matériel yu mot yoo xamante ne euh, yuñ leen di mën a jàppale daal même bu fekkente ne dañ leen di jàppale ñu jang ñu tal leen ay lieu yu baax waaw ñu jàppale leen daal waaw parce que boo xoolee seen waajur dañoo seen seen loxo moo jotul ginnaawam di seen loxo moo jotul ginnaaw looloo tax ñu leen di bàyyi non ñu ñëw di yoolaan ci waaw pas normal euh, xalé yi dañu wara jang normalement dañu wara jang bon même su fekkee jang bi tam fay bi dafa ser affaire yoy loolu motax ñu xalé yi xalé yu bari ñuy genn si yoon bi mais bo dugolé sa sa gune si école wala si arab fekk du jang jël ko nga dugol ko ci métier loolu mo gëna am importance waaw lu muy traîner ci yoon bi ni amul amuñu droit bobu quoi si gune xale yi dañuy jar a jàppale la gouvernement bàyyi xel si ñoom waaw parce que ñooy am nekk avenir si ëllëg waa seen parents yi tamit bàyyi xel si ñoom parce que xale yi cinq ans cinq ans trois ans quatre ans yooyu ñoom xamuñu dara xamuñu dara seen avenir boo leen jàppalewul mooy loolu gouvernement bi dama leen ñaan ñu bàyyi xel si xale yi même bu dee li ñu ko fi xarma ah xana ñu utal leen ay ay internat yo xamantene dañ leen ci mëna duggal ah ñu ñu utal leen ñi leen di jangal ñu jappalé leen ci lepp lo xamantene moy sa wër ju yaram ah, seen jàng ak seen lépp daal ñu mëna préparer seen avenir bu avenir bi mëna baax daal waaw. Hmm, man de mom d'accord ma ci lool mom waaw. waaw hmm. ah, jërëjëf waaw. Hmm. parce que xalé ëlëk moy dooni mag. kon parents it am nañ ci responsabilité parce que soo joxee sa doom ne da nga koo joxe daayira war ngaa xalaat di ko nemmeeku di xam ci yan lay dugg ak ci lu muy gis xam nga su ko defee même sëriñ bi nga xam ne moom nga ko jox dina xam ne kat kii respecté na doomam ji moom su boobaa moom it dina jéem a def pour respecter doom jooju nga xam ne moom lañ ko dénk waaw gouvernement bi it lim si mën mooy moom war na leen ne mën a jàppale créer leen benn centre bu rëy boo xam ne fan la ñuy nekk xam nga suñ ko defee ñu am ay losements yu baax su ko defee it su boobaa seen éducation dina mën a nekk te aussi seen njàng ak seen wërgu-yaram loolu yëpp dina si mën a am waal parce que xale yi da ngay xool ci mbedd yi la ñuy dox duñ sol ay dàll xam nga à n'importe quelle heure dañuy nek se mbedd yi di yi te lolu aussi vraiment gouvernement bi mën na jël pour parce que alcorane dafa am solo lu am solo la mais euh, niñ koy parce que il faut am parce que so amé benn puqus bu ndaw bëgg fa jangal ay xalé lolu du mëna né dañ ñu am ay losement di lekk di dund di di nelaw normal loolu da ciy am solo parce que ëllëg ñoom ñooy doon mag dëkk bi te suñ doonee mag ñi xam nga su ko ci yor éducation bu baax it gis nga ko société bi day gën a yàqu rek te loolu li damay accuser parents yi damay accuser parents yi parce que da ngaa war a toppatoo sa xale nga war a toppatoo sa xale normalement nga dugal ko si école wala métier bu ko may temps bu ko may temps jox ko foo xamante ne fu mu war a jàpp normalement bon yenn itam gune itam dañuy déborder nii rek bon dañuy déborder nii rek fekk bon mooy loolu loolu moo indi loolu quoi. manque de moyen rek parce que ñenn yeneen xale yi seen parent yi dañuy jóge dëkk ba ñëw fii am fii ay soxna jur fi duñu am. duñu duñu placé wu mieux quoi il fallait que si yi si ñoom la il fallait que seen xale yi génn si mbedd bi xam nga di yelewaan yenn di nekk ay wayu xam nga loolu yëpp gouvernement yi moo la war a jàppale quoi. état mun na mun na xool solution pour def ko parce que ñoom kese ñoom mun a am solution loolu ñu kay ñu mun a wax ñaan état bi jàppale xale yi avenir avenir ëllëg bi parce que mun na am sax président mu ngi si ñoom xale yooyu noonu waaw. bon état bi moom def nañ presque lu ñu war bon ñun ñi parents yi parents yi ñoo war a kii parce que état yi dañoo construire ay école affaire yooyu bon dañoo joxe gune yi daal fu ñu war a xëy quoi si parents yi parents yi ñoo war a jàpp si gune yi normalement jàpp si gune yi bu baax a baax ku nekk surveiller sa doom dugal ko fenn daal man loolu laa ci gis quoi waaw non non non non loolu ànduma ci ànduma si ànduma ci non non loolu moom rafetul loolu ku ko gis kay xam ne rafetul xale bu ndaw bu xamante ne boo waxee moom nga xam ne xale bu am xel la yéen xale yi dangay ngay tase moom nga wax ak ñoo xam ne xale yi dañoo manqué encadrement mais dañoo am xel waaw jàppale na rek moo lépp jàppale na rek waaw jàppale na te yàlla tax di xool ñi ñoo ñooy avenir ëllëg waaw parce que avenir moom kenn du ko fooyee waaw xale mooy avenir parce que aussi am na ci ñoo xam ne seen ñoom dañoo jur seen doom rek sànni mm. li ci war yëpp defuñu ko ci parce que aussi ñiy taxawaalu yëpp duñu ay taalibe parce que man dama ciy gis xale yoo xam ne sax dañuy xëy rek gàddu seeni pot mais est-ce que ñooñu am nañ fu ñuy ci peut-être seen pot la ñuy gàddu di yelwaan bu fu leen heure lii jotee ñu dugg parce que jamono yi rek jàpp nañ ci ay xale yoo xam ne nee nañ ay taalibe lañ ñuy sàcc xam nga loolu baaxul surtout doon xale bu ndaw amoo benn idée bu lu di sàcc mbaa di xool loo yóbbu loolu xam nga gënut kon parents yi nañ jàpp seen doom yi gën leen a éduquer teg leen si yoonu siraatal mustaqima parce que ëllëg ak si biir suñ jàkkaarloog suñ borom ku ci ne dinañ la laaj nanga doon sàmmee sa njaboot kon loolu am na importance comme ñu ñu sàmm seen njaboot gi waaw loolu waaw loolu laa amoon lu ma siy wax di la sant di la gërëm